comité de développement sanitaire yi ay kuréel yi nga xam ne ñii di waa ministère de la santé ñoom ñoo ko sampoon ngir ñu remplacer comité de santé yi nga xam ne seen liggéey dafa sooxe woon ci wàllum yorinu ressource centre de santé yi comité yu bees yi nag gën a dugal collectivité territoriale yi ci yorin bi te mu doon système bu jaar yoon. bis bu nekk normalement li ñu jaay ci garab ak li ñu jaay ci euh, ticket dañoo war def fin de journée. ñu def bilan kiy jaay ticket ñëw euh, ICP bi wala médecin bi ñëw toog secrétaire exécutif bi ñëw toog ñoom ñëpp ñu def bilan ñu signé verse ko trésorier bi trésorier bi tam dem war ko versé banque luubal benn nit rek ci ñoom mënuñu ko def tant amul beneen complice bu ci bopp système boobee nag ànd ak ay outils de gestion yi gën a tax luubal bi di gën a jafe. système mu CDS moom ci lu leer a leer parce que loolu transparence euh, ci li ko tax a jóg la bokk am na outils de gestion yoo xam ne suñ leen di remplir régulièrement yaakaar naa ni luubal néew ma du am de mais <laughs> am bi du yomb. naka noonu système bi ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo war a saytu yorin bi ngir xeex bépp caay-caay. ci biir commité de san euh, développement sanitaire bi médecin bi wala ICP bi contrôleur la commissaire au comptes yooyu tamit contrôleur lañ mais aussi euh, le maire contrôleur la mais aussi te administrative bi moo ko war a def mën na nekk préfet comme su préfet mais aussi inspection bu ministère de la santé aussi war nay def contrôle externe yu comité de développement sax. na su amul complicité bu jéggi dayoo luubal bi day jafe ci comité de développement sanitaire yi lee waaye nag teewul ci yenn centre de santé yi ñu nemmeeku fa lu ni mel lu ci mel ni centre de santé bu Ngor bi nga xam ne luubal nañ fa lu toll ci ñeenti fukk ak benn million ci suñu ay koppar.